<laughs> ñu tàmbale ko ak Walfadjri quotidien ma ngoog euh, Walf quotidien mu ngi ñuy dégtal lu aju ci wàllub réseaux sociaux yi la cay xew ci saaga ak euh, tuuma yeneen ak yeneen yéen a bi Walf quotidien euh, gis ne nguur gawoon di opposition bi fi tey daanaka ci jamono ji ña doonoon ku jeeg politique bi démb ñoo falu ci bopp réew mi ba tax na yéen a bi gis ne mbir yi mujjee naa wëlbatiku jëm ci ñoom ci ñi nga xamante ñoo falu bees ba jaxate yekk leen lu mel ne xeme mu ngi ci yéen a bi di Walf quotidien Serigne Serigne Mor Mbaye euh, jàpp ne ci jamono ji euh, lii di xasteek euh, sos ngannaay la ci wàllu politique ci jamono ji ci lu aju wàllu njënd ak njaay opérateur économique bi di Moustapha Tall jàpp ne na nguur gi wax dëgg askanu Sénégal ndax amuñu jumtukaay ak li nga xamante ne mun nañ ko jëfee subvention ñeel produit yi jógee ca bitim réew mu ngi ci yéen a bi di Walf Quotidien ñu ñëw ci source moom itam lan la xëy fësal ci xëtamu njëkk. mangoog mu ñuy dégtal ba jaxate mi ñu déglu kanamu enquêteurs yi gannaaw kaddu ya ñu ne ñagas na lool mu euh, yekk ko Ousmane Sonko premier ministre ba jaxate moom bari na lañ ko cay laaj daanaka jotu caa tontu waaye nag ne fa mu tegoon tànkam teggu ko benn yoon yéen kaay bi moo ñu ko yeggee ci xëtam bu njëkk moom source a ñu ñëw ci critique euh, yéen kaay bi nga xam ne moom it dafa mel dafa dellu soir rek ci mbiru ba jaxate ma ngoog euh, ba jaxate bu deful ndànk mun na teeri ji ca kaso te ji la fas yéene janook procureur leneen lu yéen kaay di critique fasal bokk na ci offense offense chef de l'État kaddu yu ñagas euh, teg ko ci ndoddu njiitu réew loolee dañ ko fi aaye euh, ku ko def boo deful ndànk euh, mun nga dund juróom benn weeru kaso yéene kaa bi moo ñu ko yëggee bokk na ci nguur ga woon di Macky Sall ay ñoñam ci jamono ji jot nañoo fàttali njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay ba ci premier ministre Ousmane Sonko la ñu jotoon a digg askan wi jëm ci xeexum mbirum góor jigéen mu ngi ci yéene kaa bi nga xamante ne mooy critique mais li évidence moom itam na ci ba jaxata ak ki di Cheikh Ndaw Cheikh Ndaw loxoy yoon ñu ngi leen di ante ci jamono ji gannaaw kaddu yañu yëkkati jagleel ko premier ministre jëm ci mbirum euh, góor jigéen yéen cabinet ñu bëri nag mun nañ cee jànge lu bëree bëri ndax ñoom ñaar ñi lee la ñu njëta euh, teg loxo ci nguur gu bees bi Bassirou Diomaye Faye moom beral na loxo béykat taxaw na leen euh, ci wàllub daanaka jiw ak engrais mu ngi ci yéen bi di l'évidence info yéen kaay moom nee na daal waa APR yi bàyyiwuñu kii di ba jaxate man googu du wet ca xeex mag ay kàddoom ba jaxate moomule activiste la waa APR ko war a sotle eh, taxaw nañ ko demb woote nañ ceeb ndajeeb daar daar goo xamante ne ña ca jotoon a teew bokk na ci Pape Malick Ndour ak Abdou Mbow ak eh, Pape Gorgui Ndong eh, Seydou Guèye ak Isaaxa Diop ak Moustapha Diakhaté ak ñeneen ak ñeneen maître Omar gis ne ba Diakhaté la mu wax dara ayu ca kenn waru koona wóolu ngir mu janook enquêteurs yi mu ngi ci yéen ak di l'info. Mimi moom dafa mel ni moom la rew mi quotidien fësal ci xëtamu njëkk. mangoog béyoon waar wu yaatu ci coalition Diomaye président doon dagaan baatu mu a doon njiitu réew tey jii Mimi Touré ne eh, amul lenn lu muy xaar ci Bassirou Diomaye fay mu ngi ci yéen a bi di réew mi eh, quotidien. Euh, Dakar Times moom lan la fasal ci xëtam wu njëkk. mu ngi dégtal eh, njiital mouvement volontaire pour l'essentiel du Sénégal jàpp na itamit la leen yitteel mooy fexe ba njiitu réew mi fi tey di Bassirou Diomaye fay ak Ousmane Sonko sax Ousmane Sonko sax moom la xëy bind bataaxal di fàttali la Ousmane Sonko diggoon askan wi laata muy falu ci mim bitim réew ngelawaay na ko jëfee eh, mu ngi ci yéenekaay bi di Dakar Times. mandat lu mu mandaté tey askan wi. mu ngi ñuy dégtal eh, journée jaloog eh, national ga ñuy waajal bokk na ci forum du justiciable moom sàkku ñu jël ci ay matuwaay ba la tukkee ci dogal mun a doon ngeeneel ci réew mi la jëm ci exploitation zircon ba foofee ca Niafran ca Ziguinchor askan wa nag ne ànduñ ci benn yoon ndax loraange la leen jural mu ngi ci yéenekaay bi di Le Mandat Seydi Gassama dankafu nguur gu bees bi ngelawaay bu ñu topp ci ay moo woon di Macky Sall mi doon tëj ak di tijji euh, buñ ko toppandoowee rek loolee mun naa nërmel seen nguur ci jamono ji ba tax na bàyyiloo na xel Ousmane Sonko ak euh, Bassirou Diomaye Faye réew mi. Euh, Sud Quotidien lan la fasal ci xatawu njëkk. njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye jëm ci wàññib njëgu dund gi jaru gi ñu dénk wàllu googe Serigne Gueye Diop xamle ne ñu ngi ci jël matuwaay ñu ngi ci waxtaan ci lu yàggatul dañu jublu ci wàññi njëg yi bu ñu sukkandikoo ci jawri nga ñu dénk wàllu ci yéen a Sud Quotidien 24 heures moom saison gerte gi campagne agricole lañ ko duppee nar naa doon campagne agricole gu mucc bu ñu sukkandikoo ci Mabouba Diagne jor gi ñu dénk wàllu googe xamle ne jël nañu matuwaay yi ci war mu ngi ci yéen a bi di 24 heures Amadou Ba la ñuy seen Amadou Ba bu Pastef yekk na lu mel ne xeme waa APR ne wax waru leen nañu noppi laata yeneen i mboot di euh, subleeku. yor yor yéen kaay. yor yor xëy yor wutali tool ya jëm ci wàccaayu nawet gi campagne agricole gi ñu euh, jub euh, nguur gi daanaka def na xamante ne mosta am ci campagne agricole yéene kabir yor yor gi moo ñu ko yëggee procès x bet ak TGI Dakar euh, àllarba tey ji yéene kabine diggante Abdoulaye Loum ak Mouhamed Dieng mu ngi ci yéene kabir yor yor gi mu mel nag ki di général Djibi Ndiaye moom daal dafa mel daa génne larme euh, arme arme bi rek ngir mun a jàkkaarloog euh, ñi nga mm-hmm. xam ne rek ñoom ñooy def yenn yi. mangoog jëm ci wàllu napp geek anam yi ñu ko yoree ci mim réew assise la wax ne nañ ko ci amal nañu ndëppal napp gi ngir mun a indi sa saafara bokk na ci tamit ñaawlu sax nañu tegee loxo lenn ci ay bato yoo xam ne ñu ngi bokk ci établissement Baye Niass loole nag dañ ko def nag ci lu euh, dëppoowul ak yoon nañu bàyyi yooyu le bato ñu doxi seen soxla nappi ji. muy laas yéene moom moo fa fasal loolu. man koog euh, tribune yéene kaay. Euh, mbëkk mi bëgg a dem taxu te mun a dem Barça wala Barsaq lim bu takku ci ay ndaw Sénégal bàyyi ko fii bëggoon na dem ca bitim réew jaaree ko nag ci frontière yeeg yi ni mel bokk na ci ñu ngi dund jafe-jafe yu méttee métti ca ñame ndax lu nañ ci téeméeri sénégalais ak juróom fukk euh, munata ñoo dem dañ fa faf taga tembe ca désert ba ñu bari ci ñoom nag ña ngay woote wàllu seen bakkan a ngi ci xottu gerte ña ngay sàkku ci nguurub Basiru Jomaay Fay mu taxawu leen laata mbir yi di uppi loxo. ñu dem ci le quotidien yéen kaay. le quotidien mu ngi ñuy dégtal njombe geneen goo xamante ne Air Sénégal defati na ko ca Amérique pan gam fa ah, pan euh, doon lu jaaxal ñu bëree bari yéen kaay bi ne bile compagnie war nañ ko xoolaat. le soleil yéen a kaay. Mouhamadou bi tey mu ñu dégtal euh, berte bi mi bees ci circulation Ndakaaru waaye nag euh, bu ñu ko ubbee bees euh, ba léegi yóbboogum na lu toll ci ñaari téeméeri junniy doomi aadama ci wàllu dem ak dikk te moo ne de téeméeri watop berte ak ñaar fukk ak benn ñoo fi ne ci ay bus waaye nag ñeent fukki yëg ñeent fukki rek la ñu jëfandikoo yéen a kaay bi moo ñu ko yëggee moom le soleil. stade ci yéen kaay lan la fësal ci xëtawu njëkk fësal na wàccaayu mondial 2026 euh, lu jëm ci éliminatoire yi ci euh, weeru juin gi ñu jëm euh, yan gaynde la Aliou Cissé fas yéene tànn ngir Sénégal war a football ak RDC ak Mauritanie la jago samp ci biir yéen kaay bi di suñu lamb. ayca ca stade xanaa suñu lamb <laughs> suñu lamb moom lan la fësal ak doomu dàngu ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mai bi lañu leen fas yéene géewal. yow kañ lañ lay géewal ak pël bi Omar Ba. xam naa ne combat googu nag yàgg nañ ko waaj ci jamono dem si yàlla El Hadj Sidi Lamine Niass waaye nag moom ci boppam. Hmm. moo nangu ta bëre. Euh, moom pël bi. waawaaw ndax xam na ne bëre séeréer. te gëm na ne itamit euh, dinaa ànd ak gàngoor. Euh, te aatu mi réer ko war a feeñoo ci làmb ji. xam nga pël moom dafa mun fas. waaw mun sunguf. waaw damay ragal ngeen jàkkaarloo mu fas la sunguf la. ah munta ne. Hmm? munta ne. Hmm? munta ne. kon séeréer am na lu mu lu mu la xam naa ne bu ma bu ma duggee Siin. waaw génne Casamance. waaw. Eh, añee Fuuta. waaw bëri ji <laughs> du ci mun dara <laughs> jërëjëf.